713 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. wa anta jalilun jawaadul karim yuriduna walaysa wa inni auzuha bika wa zurriyataha min shaytan rajim rabbi auzu bika min hamazati sayatin wa auzu bika rabbi an yahdurun auzu billah bismillah inna waliyallah mbokki jullit mbokki taalibe gannaaw buñ leen te di leen di jiital ci ziar bi Serigne Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Bassir di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi noonu lañ koy ñaanalee képp xam xam ne suñu borom dogal na nekk ci réew mi ñu ngi lay suñu borom oyofal yéen bi ci sa kaw ba nga eggali sa naalu maam ci darajay Seydina Muhammad di ñaanal bu baax suñu borom dolliwaat di jàmm ci réew mi ba mbas mi nga xam ni moo fi gane si mu teggil ñu ko mbokk yi ñu ñëwaat ak ci seen beneen émission Ahlou Nabi Ahlou Nabi tey mu dalal koo xamante ni ndaanaan la ku dootul présenté ci àdduna ci Sénégal ci Ndakaaru Njaay ak Tiwaawan Thiès gars yi xalif Thiès Bago kooku Serigne Babacar Diouf lañ koy wax moom Serigne Babacar si di koo xamante ni tey jii bu wooyee euh, suñu bàyyi mbay donde nga xam ni euh, ndaanaan kul fadrin la mu ànd ak ñan euh, ki nga xamante ni mooy Ali bu Al Amin Serigne Aline Badara bu Al Amin kon bu ko defee Alaaji Babacar Diouf dañ lay bàyyi rek nga daal di nuyu ko bokk internet yi. alaa ya rasulallah ah. hiya afdalal wara نحن في دخين سدير تراكم الله يا رسول الله يا أفضل الورى فها نحن في دهين شديد الترى الله يا رسول الله يا أفضل الورى صلى الله عليه وسلم فنحن في ديخ سديد التراكم فنحن في ديخ ولم نرق فارجا سوى الله والكديل للمكارم صدقت على ما قلت في غود ديننا غريبا كما في البائية خير راحم إلهي فقل أهلنا أهل غربة وأهل انتباه من سنة في التراقم نعود عليها بي نواجذي مثل ما بخلف إن ندرة العاصمة الله يا رسول الله يا أفضل الورى نحن في ديه سديد تراكم صلاة وتسليم لمن على خمر خمر من نوره نيل من الأمين هجي مالك يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألتف اللطفاء يا بلد سبقال بسلني أسجى صلاة ولا لمن على عمر من نوره منا نين الوار يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألتف اللطفاء يا بلد من نوره نيل ما منا من الوار واو واو من نوره نيل ما منا من الوار من من نوره نيل ما منا من أنوار من نوره نيل ما منا من يا رسول الله من نوره نيل ما منا من أنوار واو من نوره بآيتين منا من أنوار من نوره نيل ما منا من أنوار من نوره nuurihi naylu ma minna min naylu ma minna min waaw waaw mawlaaya al amin minna min anwaari min nuurihi naylu ma minna min anwaari min nuurihi naylu ma minna min anwaari min nuurihi نيل ما إلا من أنواره من نوره نيل ما منا من أنواره من نوره نيل ما منا من انوار من نوره نيل ما منا لاني ويلي من نوره نيل ما منا من انوار بايجيلي من نوره نيل ما منا من انوار من نوره نيل ما منا من انوار من نوره نيل ما منا من mu mel ni saal bi yëngu na mu mel ni plateau bi yëngu na Babacar lii lu mu doon ah góor ci am jàngoo sëñ Xaadim ndeysaan man bi nga fi tasoo laa xam ne ndaanaan nga barke sëñ Bamba Babacar Diouf loo bëgg loo bëgg gàmm la ñuy dox de waaw mu mel ni Babacar dëkk mal nañ gàmm gi yàlla def na ni euh, comme niñ ko waxee Babacar Diouf jóge na Kees ñëw na Ndakaaru di wax ni Babacar tey bu ñu déggee ngay say woy woy yi day wér Babacar bu ñu déggee ay woyam xel mi day dem ci mag moo xamante ni euh, mag ñëpp dañ koy safoo di wax ni euh, moom fan la tarbiyoo waaw tabaarakallah xaj jiili ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wàcce seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo bi tabaarakallaahu directeur général bi nga xamante ni moo jiite site bi nuyu caméraman yi tabaarakallaahu nuyu la mhm. yow mi nga xamante ni yaay sunu sabab ñu teew ci plateau bi yàlla dogal a ah, comme ni nga ko waxee mag mi ñuy roy tabaarakallaahu muy alxaaji Baye mbay Donde radiallahu taala anhu di papay alxaaj dut kenn mbay yàlla dogal mu nekk koo xamante ni mu ngi nekkoon ci keppaaru sëriñ kër si radiallahu taala anhu ah sëñ Babacar nag moo ko wowoon ne ko mbay wayal tabaarakallaahu boobu ba léegi yaakaar naa senegal kenn réeréwu ko mu dem bàyyi ñu fekk koo xamante ni tabaarakallaahu mooy sunu sag di sunu royuwaay muy alxaaji duut kenn mbay tabaarakallaahu di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér bu baax a baax xaj tubaarakallaahu comme noonu ma ko waxee bëggoon na nañu xam it tamit ndax euh, Babacar euh, ndono la ndax dafa am daayira boo xam ne da koo tarbiyu wala dafa dafa dafa ci waaw comme ni nga ko waxee ak gi bi moom daf ñoo dab. ah tabaarakallaahu du amuñu jur bu koy def. Mhm. amuñu ay maam yu koy def. ah yàlla daa dogal liñ naan cofeel doxul jàmm. yàlla dogal ñu di duroo ca diwaanu Thiès comme ni nga ko waxee. Ah. ñu nekk jeune tabaarakallahu di déglu alxaj dut kenn mbay ay woyam nekk lu ñu impressionné di ñu koy yëg suñu biir xol. yàlla dogal nag ñu dugg ci tàgg yonent bi ngir yàlla ak barkeem ñu nekk ci nag di nab nabi di gëstu ndànk-ndànk comme ni ko mag ñi di waxee ne tepp tepp moo gën yuréet yàlla dogal nag loolu mooñ ci dugal. waaye tamit ñu amoon suñu benn mag bu ñuy wax oustaz Mor juuf ndeysaan tabaarakallaahu daan ànd ak duudu. waaye jëmmi jamono mu bàyyi tàgg yonent bi di waxtaan. kon ba léegi sax mu ngi ci tàgg yonent bi. ndax dafa nekkatul maanaam ci wàllu. way waaye mu ngi ci wàllu firim yi. tabaarakallaahu xam naa du ñàkk sax bés dinaa leen boole. mu ñëw fii jàkkaarloog yow ci palaato bi. incha allahu taala bu booba di ngeen gën a xamante. waaw Babacar daal looloo ko dugal ci tàgg yeneenti bi yàlla dogal nag ma jóge Thiès hmm. ñëw ci daayira bu ñuy wax mu mutahabina fillah ñu boole maag ku ñuy wax xaaji Pape Sylla xaaji Babacar Diouf waroon na teew mais xat-xat moo ko jàpp mu ne ma mu ne ma Babacar yow sama rakk nga foo nekk maa fa ne kon dem leen rek ngeen doxal ñu ngi seen ginnaaw démb moom lañu nekkaloon ci burdu wax dëgg yàlla mu nekk lu am solo daayira bi it nekk ñu jàmbaare bëgg sëriñ Abdou ba mu jeex tàkk di daayira Mutahabina Fillah ñu nuyu président alxaaji Amath Gueye di ko ziar bu baax a baax di nuyu mbokki inte 6 ak 5 yëpp mu kenn waaye di la béggewaat yow xaj jiili bu baax a baax yow it suñu wëllëre nga suñu lépp nga te li ñuy def nii yaa ñu ko dàq fuuf waaye sa mbaax ak sa woyof moo tax nga jël ñu tabaarakallaahu rek indi ñu ci plateau bi macha dëgmal ki nga xamante ni mooy ku sakkan ki mhm. mooy ku yàlla waxoon yaa ma saf ma saf la fa isa faraxta fansab ila rabbika waa kay mhm. yàllaa ko ko waxoon moom ci yàlla Muhammad di wax ni kon moom lañ dëgmal di wax ni mhm. Babacar kon tuuti coow la ñuy def tàgg ko lu bari ñu waatal ci moom yonent bi wallahu arsala walil alamin nahudan wa rahmatan ismata jëslun billah Maodo nee na allah nabi wa ale ajmaina salaama rabbina daiman ama bi sa sëriñ abu nee na wallahu arsala wa lil alamin rahmatan izmatan alena ala nabi wa ale ajmaina salama rabbina daiman ama bisa wallahu arsala lil alamin المتاع المتاع جسل بلا يقو فامننا الله نبي والي أجمعين سلام ربنا دائما أما بيسا سبيا سمبن أوفين وسد سبيانغو سبيانغو سبيانغو yango Mamadou Sabo yango Mamadou Sabo yango Mamadou Sabo yango La ilaha illallah Sabo yango Muhammadou Sabo yango Mamadou Sabo yango La ilaha illallah Sabo yango Mamadou Sabo yango Muhammadou Sabo yango Muhammadou سابيا عبد الله جاء همة ابن عبد همة ابن عبد همة ابن عبد الله همة ابن عبد الله همة ابن عبد الله همة ابن عبد الله همة ابن عبد الله حكمة إبن عبد الله حكمة إبن عبد الله حكمة إبن عبد الله حكمة إبن عبد الله حكمة إبن منة يا إيجا حكمة إبن عبد الله حكمة إبن منة يا إيجا حكمة إبن عبد الله ويدو ميكان عبد الله ويدو ميكان حكمة إبن عبد الله Hëbmatu Ibn Hëbmatu Ibn Abdalaay ja mooy doomi kan Abdalaay mooy doomi kan Abdalaay ja mooy doomi kan Abdalaay ja Hëbmatu Ibn Jootu Hëbmatu Ibn Abdalaay ja Hëbmatu Ibn Abdalaay ja Hëbmatu Ibn Hëbmatu Ibn Abdalaay ja Hëbmatu Ibn هبمة ابن عبد الله جاء هبمة ابن عبد الله هبمة ابن عبد الله هبمة ابن عبد الله هبمة ابن عبد الله سيد الآي مالك نينا الله نبي وعليم أجمعين سلام ربنا دائما أمر إسحاق مدهم fa tabaarakallaahu ku dégg loolu xam ni ah, gàmm nanu gàmm nanu Babacar dama koy laaj lan la bëgg ah daanaka fii yëngu na de gars yi ngi ñàkk de baat yoon si yàlla moom rek sama caméra maa ni gis nga leen noonu yàlla def na ni muy ndaanaan di koo xamante ni kenn dootu ko présenté mutahabina fillaahi nu ngi leen di ziar képp koo xam ne membre nga ci rek ñu ngi leen di ziar di leen jox ko dalee ca bopp ba ba ci gën a nekk tout tànk rek ñu ngi leen di ziar di leen la ndax ah, bu baax la rafet na murit ak tijaan ak laayeen bàyyiwu leen kenn ñëpp ngeen ah, ah, ñëpp ngeen boole ci biir noo ngi siyaare bu baax sëriñ Xaadim bi nga xam ne boobu ba tey woy dugg na ko barke yonent yàlla Muhammad di wax ni woy dugg na ko woy dugg na ko nun bëgg nan Babacar Diouf bëgg nan loolu de barke Sëriñ Tuubaa xale Kees baa ngi nii bi nga ñëwee Ndakaaru yàqoo sa bopp barki sëñ Tuubaa yaa ngi ci lu baax moo tax bi ma la gisee naw la fonk la ngay woykat di ko teg ci yoon ma gis la bëgg la woo la ci émission bi bi ma la wooyu rëccu ma ko ndax wax nga dégg nañ ñii ñëpp yëngu nañ barki yoon ci yàlla moom xale yi nga àndal ñoom Ali ñi nga xamante ne ay jàmbaar lañ Ali bu Al Amin Serigne Alioune Badara bu Al Amin ñoom nga xamante ni tubaarakallah macha allah nekk ndakaar Dakar yàqunu seen bopp kon di wax ni émission Ahlou Nabi bi mu ngi noonu mu mel ni gàmm gi xaw na am coppite gu ci am mm-hmm. ndigal jug na ci sunu baay bu baax ba xalif général de Tidiane di wax ni am na am na lu mu wax. ngir li nga xamante ni mooy mbas mi fi mi am. léegi euh, ci ñun ñi nga xam ne ñooy nabiyee suñu stratégie bi nga xamante ni war nañ koo teg. ngir ñëpp mën a jot ci gàmmu loolu nan ko fas yéenee euh, doxalee. waaw xaj comme ni nga ko waxee ndigal jib ci xalif général de Tidiane Serigne mm-hmm. Mouhamadou Mbaye Mansour. ndeysaan ku nekk xam na ni àdduna bi li ko laal dafa am doole. Mm-hmm. muy Covid bi. Uh-huh. moo waraloon ñu tëj jàkka jumaa yi comme ni ko ni nga ko waxee ci déclaration bi. Mm-hmm. li nga xamante ni moo ñu tere woon a dem juma. Mm-hmm. tere ñoo def tabaski ak ya ca topp. Mm-hmm. moo ñu teree gàmm. waaye terewuñoo gàmm. ndax wax dafay laaj ñu dégg. ndax sëriñ bi dañu ku nekk fa nga nekk nga gàmmoo fa. te yaakaar naa nit fu mu nekk mën na foo gàmmoo. ni mu fay gàmmoo nag mooy li Cheikh Seydil Hadji Malick waxoon ne ala azimu laylal wiladati xisbatan Uh-huh. isa lam yakun naxwa alxaraami xudul màggal guddi sayduna muhammad uh-huh. ci loo xamante ni maanaam amul lenn lu xaraam uh-huh. kon yaakaar naa sëñ xaadim bu toogee këram jël alquran jàng def ay salaatu ala nabi gàmm na yàlla nag ñun comme ni nga ko waxee ñu xamee ñu ci nettali mbindu mag ñi tabaarakallaahu peut-être am na ku ko mënul mu woo ñu ca këram ñu dem toog defandoo ko ak moom fanaanoo moom guddi gi waaye ci biir kër yi au lieu ci mbedd yi. ñu defe ko ci biir kër yi comme noonu la ko xalifa bi waxe te Serigne Mansour borom daara yi da doon wax ni ndigal boo mënee defal. boo mënul defal. donc nag comme di am nañ ndigal ci xalifa bi ne nañ ko defee ci kër yi. yaakaar naa suma juumul boobu ba léegi ñu ñuy woo. di ñu demander pour ñu ñu leen koy defal ci biir kër yi. tabaarakallaahu kon noonu rek lañ ko fa fas ne defee suba incha allah mooy ci biir kër yi dinañ takk rajo yi. toog gàmmu ci biir kër yi ba ba set jot comme nañ ko doon defee ci tabaarakallaahu ñoom it ña ngi koy def. ndax boo demee kër Serigne Babacar radiyallahu taala anhu alxaj dut kenn mbay ma nga fa di burdu. nga dem kër Pape Sëñ Baye Abdou ñoom Abdoul Aziz Baye ña nga fa. Mhm. nga dem kenn ba ña ngay gàmmu. nga dem lew na ñaseen ña ngay gàmmu. Mhm. kon gàmmu dafa yaatu. boo demee Touba it ñu ngi gàmmu. kon yaatu na. Mhm. tabaarakallaahu yal nañ ñaan yàlla rek mbas mi nga xamante ni moo waral. ba mu demee nii yàlla teggil ñu ko waaw li ñu waxoon rek balaa la bu wàcc àdduna dañ koy nangu mhm. ndax Cheikh Seydil Hadj Mael da doon wax ni yàlla ba ñu ma nga teg ma nattu waaye loo ma teg yàlla na nga ma jox teeñ bu ma ko mën a teeñoo te mën koo muñ war a diini bil qadaa rabbi Moussa Birani ala balaa ika yaa rahmaanu yàlla tabaarakallah kon mu mel ni euh, mbokk yi noonu ma ko indee ci ay leeral di wax ni ni ñu fas yéenee doxalee gàmm gi ci beneen façon wax ci kër yi koy gàmm ci neneen lañ koy defee te euh, la ñu daan pratiquer ca Tiwaawoon dara du ci jóg. Mhm. waaye dinañ ko defee ci ci beneen anam. di wax ni tey dalaloon nañ ki nga xamante ni mooy euh, Serigne Babacar Diouf moom Serigne Babacar si. xale bu Cees bi ñëw Ndakaaru euh, ñëpp xam ko fi bëgg ko fi di ko safoo ñu ngi koy jox wàccuwaayam ñi moog ñi mu àndal di wax ni lii moo nekkoon seen émission Ahlou Nabi di wax ni Babacar dañoo jeexal nekk ci jeexitalu émission bi. Mhm. kon dañ lay bàyyi nga ñëwaat tuuti rek ci ci ci mbindu mag ñi. Mhm. ci li nga xamante ni moom la Seydi Hadji Malick euh, euh, euh, wax ci yonent bi mm-hmm. tuuti rek bu ko defee nga daal di tàggoo mm-hmm. bu ko defee ñu daal di wàcc jotaay bi ilahi ya ilahi ya ilahi dafana ilahi بتن خبل المنان مودن إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة حبل المنون مودن منين يوم يوم ذو اسم منين مودن منون خير ذي عجب منون مودن إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة حبل المنون مرتدى كدين بسير مودن وليس على المغيب بذنب مودن إلهي يا إلهي يا إلهي مودن إلهي توبة حبل المنون مودن مجاوبة هل الأسنى بما زال هل الأسنى بما زال هل الأسنى بما زال ودمدم في ركوني وآم ثم سر ثم يوم أتى فيه الهدى خر القرون سر وحمد في سرور في سرور وحيد هنا أعياد العيون ربيع وحسنا فيه سحير بعامل فيه يوما جبع بنون ومولده به شرف وحير ومولده به شرف وحير من مجد دوي كجي صف يونتي بي لوخو جاكو جرنكو جران اي ما جران يلا جران بالله والله تعالى زواجا جت بمدينه منوره اكرم ومولده مولدها به شرف وحير موطني ومولدها أي به شرف وحير وصليا يا إلهي وجيا أبدا أن محمدا المختار في الخدم النبي مودنا ومولد به شرف وخير ومولد أي به شرف وخير ومولد به شرف وخير عاف في تعظيم إن جاه سجوني آه إلهي يا إلهي يا إلهي آه إلهي توبة قبل المنون صلى الله عليه وسلم أيوه ay waay ay waay ay waay fa tabaarakallaahu ñii ku nu rey lan bëgg xam nañ ni ma mel ci yonent bi xam nañ ni ma mel ci ay way yu neex ak yu baax moo tax Babacar bi nga ñëwee da maa bëgg a gaañ waaye du ma ko nangu damay gàmm ji comme yow damaa bëgg a gàmm ji di wax ne tey seen émission Ahlou Nabi moo dalaloon ki nga xamante ni mooy sama soppe bi sama xarit bi Babacar Diouf moom Serigne Babacar Sy xarit Thiès bi ci Ndakaaru nga xam ne ñëpp a ko bëgg safoo ko di sama xarit ànd ak ñan euh, ci xale yi Ali Fadiga dégg naa la bu bu al amin waaw waaw waaw mu ànd ak ki nga xamante ni Serigne Anne Barra bu al aussi noo koy siyaar di leen di leen di leen bëgg di leen jox seen waas waaye émission bi nag dama koy mu taxaw dina laa ko may tey ñoom ñëpp alaaj Babacar Diouf Pape Serigne euh, euh, euh, Serigne mbay Mbaye Sylla mhm. président Amath ñoo ngi leen di siyaar ñoom ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di wax ni yàlla na waaw waa kër Pa Youssou Ndiaye ñoo ngi leen ñu ngi leen di siyaar bu baax suma waa kër suma papa Dieye mhm. di ko siyaar bu baax di siyaar bu baax ki nga xamante ni tamit mooy sama papa ki nga xamante ni mooy Fadiga Kaaw maa ngi koy ziare bu baax di ko jox wàccu waayam di wax ne émission bi tey ñoom laanam yi Babacar di wax ni egg nañ ci li nga xamante ne mooy jeexitalu jotaay bi di wax ne bëgg na nga def ñaan ci jotaay bi ni allah na minu samawatu fi xadin yeneen yenaalu rida kulla abdin muwaxidin ala qadan bi zanbi aw anta amade jara irnatum ka bijay muhammadin إذا سفي المحبوب جاز المبهرج جرى تهيرنا تمحى بجاي محمد إذا شبع المحبوب مجاز المباح رجو جائرنا تمحى بجاي محمد إذا sufiyaan maxboo mujaazal mu baax rajo. ala ahmadin min rabbi salawaatu yonen. sallallahu alayhi wa sallam. azumat fi xalqi barakatu laat bakarat samsa duwa mujizatu bara innahu la tanxadir wa ibatu wa ayatu subul wa anmalu subul jara Jóob laa budda min saqwa ilallahi kurbati amin فمن لي خير الله جميل كسرتي امين وخرك يا باب الخير يا ربي لم يفيد امين لذاك صرفنا نحو باب بكيتي امين فانت كريم فالكريم من التجا الى بابك يا من على كل نعمتي امين فانت حليم يا صبور لمن جفا فانا عبد جئت تبادي زلتي امين فلما بدا لي أنه ليس مهرب آمين سوى بابك الخميس مدتي بيتي آمين إليك بدخف وافتقار وفاوة آمين لتغفر لي يا رب من كل زلتي آمين فبين يدي مولاي ما زلت واقفا ذليلا خطيرا مستغيثا رشدتي آمين فأنت إلهي يا مجيب لمن دعا دعوتك يا ستار فسما يبتي امين فيا ربنا اصرف اليك خواتي امين بجاه نبي للبرية رحمتي امين فيا قي يا قيوم يا الله وربنا إليك توصلنا بخير البرية آمين اللهم يا من أزهر الجميل آمين وستر الخبيث آمين ولم يعد بالجريرة آمين ولم يهتك الستر آمين ويا عظيم العفو آمين ويا حسن التجاوز آمين آمين ويا واسع المغفرة آمين ويا باسط اليدين برحمته آمين ويا سميع كل نجوى آمين ويا منتهى كل شكوى آمين ويا كريم الصفي آمين ويا عظيم المن آمين ويا مخل الغسرات آمين ويا مبتدئا بالنعم قبل استقائك يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا خير رحبتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا خير رحبتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا خير رحبتي أسألك ألا تشيخ خلقتي آمين ببلاء دنيا ولا بعذاب النار آمين بارك مكة بارك مدينة آمين بارك فاس بارك تيوان آمين بارك سيد وخاج مالك بارك سيد الخليفة الصلاة الفاتحة آمين كن دق يلا بودم سفرة fa tabaarakallaahu mu mel ni noonu lañ ciy profité di ñaanal góor bu baax di suñu papa. ne yàlla fëkk boppam. amiin di koo xamante ni euh, euh, euh, exemple la ci quartier bi ñu ngi koy ñaanal bu baax Baye man caam di ziar bu baax suñu yaay merkan hmm. di ko taalibe Serigne Babacar si bu mag boobu. di ziar waa kër gépp ku ci mel ni soxna Fama ñu ngi koy ziar bu baax soxna Maymuna laa ñoom. Fatmata ak ñëpp rek xale yi kër gi ñu ngi leen di siyaar di leen jox seen wàccuwaay di leen may émission bi tey mm. di ni moo nekkoon seen émission Ahlou Nabi ñu àndoon ci ak kan seen xarit seen soppe Jeylaani Mbaye Zikroulah di ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul Karam Mbacke Noreyni suñu borom yàggale ko fi amiru sultaan boobu mm. di ko ñaanal rakkam ja Cerno Birahim Fati Issa Dieye ma ci Sikori di ko ñaanal bu baax di ñaanal bu baax sama yaay sama soppe ba ajar soxna ñang di wax ni lii moo nekkoon seen émission Ahlou Nabi mm-hmm. kon ñu ngi leen jox dig daje ak beneen daanaan ci beneen émission yàlla ñëpp am jàmm ci barke yoon ci yàlla Muhammad di gërëmaat bu baax nag ci nga ñi nga xamante ni sama caméraman yi ak ñi nga xamante ni assistant bi Serigne Khadim ñu ngi koy ziare bu baax di ko jox wàccuwaayam jaw fara ah borom surtout alaaj daawda jabi borom jolof ñu ngi koy ziar lay seen ak Alassane libaas infatigable sama waa ji nga xamante ni barke Serigne Touba Euh, mooy ku ñàkk ki ñaan koo xamante day defal ba mu baax li baasal laay maxtaar ñu ngi lay ziare bu baax di ñaanal personnel bépp yàlla nañ am jàmm ci barki yoon ci yàlla Muhammad jërë jëf yàlla nañu yàlla defal jàmm ci jalilun jawaadul karim yuriduna waalay xawi